الضالين لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد يحسب أن لن يقدر عليه يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد alam naj'al lahu aynayn lisaanan wa shafatayn wa hadaynaahu najdayn falaqta'a man xaqabata wa ma adraka man xaqaba fakku raqaba طعام في يوم ذي مسقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ulaika asxaabu almaymana walladina kafaru bi ayatina hum asxaabu almashama alayhim naaru musada allahu akbar allahu akbar samia allahu liman hamida rabbana لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله الله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 الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى أما من أعتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى fa andartukum naaran talazza laa yaslaaha illa al asqa alladi kadaba wa tawalla wa sayujannabuha al asqa alladi yu'ti maalahu yatazakka wa maa li ahadin indahu min nicmatin tujzaa illa ibtigaa wajhi rabbihi al a'laa wa lasawfa yardaa allahu akbar allahu akbar سمع الله لمن حمد ربنا الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله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 allahuma bi aqwati llahi taala alkarim salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على أحياء منهم والأموات وهب لعبدك وخليلك وحبيبك وخديم رسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك وخليلي وحبيبه عليه الصلاة والسلام بآله وصحبه